أعداه أو يبديه خالق الزمن على الورى استغاه من أبداه رحمة كل بعدما هداه وجوه سادي الكرام بيضة بعد مجاهد هدت إلة خدت الذي أبى العبادة فلا يزال الماء ما فلا بركة المختار ليس تنخرم ونور ساتع ليس ينصرم أبى إله تحلى لمصطفى وجات خدمة ففر بشارة له ودين فر لمنتقى وجات ما قد أذهبا جملة ما لم تغلي قد هبا لمصطفى وجات أذهبا جملة لم يبق لي فذهبا wuy sima te nga andi way wi nga way sëriñ Tuubaa ak dëkkam ana baara géy aboo mareem kaay wuy sima te nga indi way wi nga way Serigne Touba dëkkam sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al axyaari wa sallama tasliman kasiran xanaa def mubasharatan rek daal di tabbi ji qasida gi mutafaailun mutafaailun mutafaailun bu ma kaamilul di la way du jekk du am xorom mutafaa'ilun mutafaa'ilun bu ma kaamilul di la way du jekk du am xorom bu ma dee nafar sama bindi ngor du ma soxla cër ca la wuur ya yor ki ma tax di gor kase laa gërëm bu ma songu mbër du ma songu mbër te ku ñëw ma tër kama ngem ba tër kanu fal fandar ban tëj këram nit a ku xolam xelam te di cam xam ku mu xes ba xam jote ko xolam du ko dee si jam sama dund gii sama bëgg gii jote may ngërëm yu ma bamba mi gërëmee kase ci doy ndaxam ne ca jur ga sàmm ba gëm sëriñ bi di sàmm gën ne ca gétti buur ya di am yafal dërëmoo ngërëm defu fa sàmm ba sàmm ba saw ma ko weddiwul aka gënal ma di xejj boobu këri buur la xam mbàkke morso boo dagg wodde may la ma tànn jël lu mu gàtt gàtt gënal ma mbubb ma buur ne am mbàkke morso boo dagg wodde may la ma tànn jël lu mu gàtt gàtt gënal ma mbubb mu ma buur ne am ku la am nge am lu fi am ami taxa am ndaxam ku la xam ba xam li nga am nga may matalu cëram nu ma def di kenn ci ñii la gëm di la toppitam la mu sax ka ñam kase moo ko xam ak a sax xorom dafa dàq lem dafa dàq lem ku ko ñam du xam ku ko moy du gëm ku ko moy te it ku ko weddi jaay na la bakkanam mbàkke yaa ngi maa ngi la soxna yaa ngi njaboot gi am lu nu man di ñàkk di fii di fee karanan la am lala njàmme jàppe ba ëppe ñépp ci yow ndaxam ku ma jiima xam xañ doona lii ci woy la du làq ndam la ko njàmme jàppe ba ëppe ñépp ci moom ndaxam ku ma jiima xañ doona lii ci way ko du làq ndam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ku jub di maagal